Elzo Jamdong, Sambe Pesi, et Job Sabrates, Jela, Sabel et Pamadjan. Au platine. DJ Pims de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin ainsi 30 000, VIP Prestige 50 000. Disponible sur Jumia, en livraison chez chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader Orange. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñu ñuy seetaan ci wasaare lamb ak LP mbokk yi ak lu lamb yëpp laay wax tey ñu ngi ci Kaolack Kaolack nag bu ñu fi ñëwee petit production moo ñu fi indi ci kan la jëm ñu ne xanaa parrain bi nga xam ne nii mën naa ne ci lañ ëpp yaakaar muy parrain bi nga xam ne moom la ñuy dippee làmb ju mag jooj danañ ci ñëw. Kaolack mbokk yi ci borom Kaolack lanu ñëw buñ ñëwee ci borom Kaolack nag dañu naan xel yi dal na petit ànd ak ñun def lu rëy ca Dakar stade Iba Mar mu nekk bés boo xam ne Sénégal gépp a ngi ciy bàyyi xel le 21 le 21 date la ci biir dat yi dañuy wax naan taarix dana ko bind petit la mu def lu rëy la lu rëy lañ koy tuddee. daa dem ca Bawol toj ko ba mu mokk ru mu ne damay dem ndakaaru toj ko yàqate foofa kan lay àndal xanaa borom Kaolack ki nga xam ne mooy Cheikh Talla Diouf donc Petit ak Cheikh Talla ca est jëm Iba Mar Diop loolu le 21 la incha allah ñu ne nag Cheikh Talla danañ la seedal ñaari mbir ci pëti production mi ku am fit a ngi nii am fit weesuwut ay magam ci làmb ñu ci bari ñu ngi daw ndax làmb dara làmb bu doon business bu rentable mën nañ ne kon li mu yor mën na koo dugal ci leneen. waaye làmb rentable amul xaalis boo ci duggee sa bëgg-bëgg mooy combat yi nga tëgg jeex ci jaam ak salaam mbër yi gis seen bopp ñëpp gi ci seen bopp mais amul lenn loo xam ne revenu la lu ñuy dugal seeni i poos loolu nag ku am fit mooy jëkk yëkkati xaalisam di ko ci dugal kon gàcce ngaa laa ma petit mais nag am yaakaar ci yow doy loo la moo tax mu yëkkati bés bi jagleel la ko te dañuy naan olof danaan nit bu la dippee doom rek sa jikko doy na ko sa jëmm doy na ko sa lépp doy na ko donc jàppal ne bésu tey bi doy nga Petit doyloo na la moo waral mu yëkkati bés bi jagleel la ko mu nekk bés bu rëy nag nekk sa première entrée ca dakaar ndax bës bi mën naa ne képp kuñ ko dippe woon nga jël ko say fukki loxo yow nag gàcce ngaa laama ba nga ko jëlee ak say fukki loxo ndax ndakaaru mën nañ ne làmb metti na fa lool waaye bu yombee rek ci parrain yi la yombe parrain yi ñoo koy yombal ndax sponsor amatu fi mais tey di wax naan peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya làmb tey bu neexee ci promoteurs yi mu jeex ñu am satisfaction totale c'est grâce à promoteurs yi nga xam ne ñoom la ñuy dippe làmb ji kon jërëjëfati bi nga nangoo jël parrainage bi bi nga nangoo gunge Petit Production ci làmb jure yi nga xam ne mooy dox ci diggante Yankaw Junior ak Réparé numéro 2. donc nag bës la boo xamante ne nii Sénégal gépp ngi la ciy xaar naka ngay ñëwee Ndakaaru naka ngay defee sa première sortie ko amatoo lenn loo loolee nag moom moo waral nga war a dem dakaar wane sa bopp def comme ni nga doon def ci Kaolack ba ñëpp tàmm di la tuddee ay bés wala ñëpp tàmm lu ñu yëkkati rek ñu ne nañ daan dew ca Cheikh Talla Diouf donc bës baa ngi noonu di le le 21 décembre ci stadium Iba Mar Diop. jëwrin bu dee am na loo ci yokk Lamine kon euh, Cheikh Talla comme bés bi sa bës la yaa xam naka ngay ñëwee ñan ngay àndal naka ngay duggee dakaar mais nag sa première sorte ca Dakar warut yomb. ziar nañ la. delloo naa ziar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay macha allah di rafetlu bu baax a baax teewaay bi fii ci Kaolack rawatina teewaay bi fii ci biir kër gi waaw di ko ànd ak yéen di am mbégte bu baax a baax ci suma xarit bi nga xamante ni moom mooy Petit mu jël bisam bu mag boobu noonu nga xamante ni dippee ma ko ma koy rafetlu bu baax a baax a baax waaw wax dëgg yàlla sama xameel ak moom yàggul. mu ngi jaare ci sama benn xarit bu ñuy wax Mourtala bis ba ma ooyee wax ma ne ma damaa am sama nit sama xarit mu bëgg a jël drapeau bi tuddee la ko dama ko rafetlu bu baax a baax contact parce que Kaolack la ñu dëkk fii nii waaye yaakaar naa ci sortie bi sax soo fa taxawee boo laajtee kan mooy Cheikh Talla Diouf dinañ la ko wax. nit lañ boo xamante ni euh, néewuñ ne euh, wax dëgg yàlla lu nekk mënuñ mënuñ ko Kaolack waaye liñ fi mën bari na. ba tax na amul lenn lu nga xamante ni day xew Kaolack te ñu ci boole mënul nekk ba tax na yàgg nañ di dox ci wàllu social boobu noonu bu baax a baax waaw nag rafetlu naa bu baax a baax euh, drapeau bi nga xamante ni sama waa ji dippee na ma ko di xaar ba bis ba rek lépp li nga xamante ni ko wax dëgg yàlla am nañ ci yéene incha allah rabbi dinañ ko def te tamit yaakaaram moom du tas ci nun bu neexee yàlla incha allah. mais nga jëm Dakar te day laaj mobilisation bu bu dëgër di laaj aussi ay moyens parce que euh, ndakaaru moom ndakaaru rek la. noo koy waaje waaw comme xam nga sama gaa yi nga fekk fii nii rek ñoom daanaka ñoom bis bi ñoom ñoo ma ko gën a bëgg parce que lépp lu nga ni que ñoom tudd nañ ma ci rek donte na sax fekkuma fi fekk na ma génn ñoom bu leen fi fekkee man sama xel day dal parce que euh, tee nañ ma te tamit euh, lépp lu nga ni que rek man maa ngi ci ñoo ma koy gën a bëgg depuis petit wax ma affaire bi ak léegi ma def ko statut chaque jour am na ñoo xam ne dinañ fàtte affaire bi sax mais il fallait que ñu laaj ma affaire bi kañ la affaire bi kañ la Dakar moom incha allahu rabbi fu ñu miin la. demuñ fa benn yoon demuñ fa ñaari yoon min nañ ko bu baax a baax te ñu bëree bëri ñi nga xamante ni dañuy jugee foofu noonu di ñëw fii nii bari na ñoo xamante ni balaa ñoo dugg si Kaolack dinañu xamal ne ñu ngi ñëw waaw ba tax na daal incha allahu rabbi bis bi daal yàggatul incha allahu rabbi waaw. waaw euh, monsieur le Pané ñu lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di wax ni tey jii daanaka bu ñu teewee fii Petit Production moo ko waral mu organiser li nga xamante mooy bés bu mag. tey jii Dakar ñëpp ñu la siy xaar à travers tamit parce que booy xool combat bi instant yi wër na fépp muy daw si réseaux sociaux yi di fi nga xamante mooy si télévision yi lépp gars ñu ngi koy waaj te ñun lay xaale si wàllum mobilisation bi ak wàllu li nga xamante mooy say say côté parce que booy xool ndakaaru instant yi tëgg fa làmb mun naa wax lépp si parrain bi la parce que pare pare parrainage bi bu ñëwee rek a 100 pour cent rek dina xaw jàppale ki nga mooy promoteur bi te bu la déggee say bi wax nee na lépp lu lu nga si mun dina si jàpp yow say xarit ak ñi nga dëkkal waaw tey jii damay wax ni maanaam ndax fii dina am ay car yoo xamante dina ñëw li nga xamante mooy gungee la si wàllu mobilisation jàppale li nga xamante mooy petit production na loolu yaa ngi koy wàcc wala côté boobu. waaw alhamdulilah côté yëpp daal yi nga xamante ni ne moom buñ ko defee mu taaral bis bi. ak bu ñu ko defee petit kontaan ci ñu ngi koy pare bu baax a baax waaw yàlla nag euh, dogal na daanaka wax lañ mëneewul bu baax a baax mais incha allahu rabbi daal lépp loo gis na daal ñu ko defee petit kontaan ñu ngi koy def ñu danañ ko def incha allahu rabbi bu neexee yàlla waaw. àndal ci bés bi waa Kaolack rek wala feneen nit yaa ngi fay def comme ni ngay def am na ñoo xamante ni ñu ngi foofu sax ci dëkk bi di ma xaar am na ñoo xamante ni ñu ngi fii Kaolack incha allah daal bu bis baa daal dinañ xam ne daal incha allah ñëw nañ daal te ñëw nañ tamit ak doole bu neexee yàlla incha allah. di nga indi ay surprise. <laughs> waaw bu bis baa daal loo xam ne petit sax foogu ko. waaw boobaa daal incha allah comme ni ma ko waxee léegi daal sama waa ji moom dina xam ne daal bu baax du du réccu daal lan lañ doon tuddee bis bi daal incha allahu rabbi waaw côté yooyu moom pare nañ ci bu baax a baax a baax a baax incha allah. Mm-hmm. waaw waaw am na mbégte kontaan bu baax a baax ci sama waa ji yéen di leen ñaanal bu baax a baax a baax di rafetlu teewaay bi fii waaw di leen wax ne daal macha allah am na mbégte lool lool lool lool lool lool waaw. yëkkati leen drapeau bi réparé numéro 2 ak Yankaw Junior petit mi moom moo ko taxawal. mu nekk làmb ju rëy nag làmb joo xam ne Sénégal gépp ñu ngi koy waaj comme ni ma ko waxee sànq petit nuyu nañ la. salaamaaleykum ginnaaw ma sant sama ñaar waa di sant ñi fii ñëpp quoi di nuyu Cheikh Talla comme ni mu bi ak xaritam yi ak ñëpp ñu fi teew quoi di nuyu waa Saar ak LP TV. bi rëy na waaye parrain bi it mat na ko sëkk. waaw kii moom ki nu boole moom muy Cheikh Moutala di sunu xarit. digloo koo xam ne tamit am na lu muy def ci ñun quoi mu ñëwee choisir na sa Cheikh Talla sama xarit la lépp loo mën a turee mën nga ko turee si la waxtaan mu accepté ñu boobu moom lu mun a am mooy ñoo gis ñu woo bu dara moom ñu woo di nemle ko di xool ci lu nu ci ñëw fekk si ko Kaolack pour indi remiser ko drapeau parce que bés bi fi mu toll 20 jours moo jot xam nga 21 jours quoi mm-hmm. ñoo koy waaj baax mais làmb metti lool nga gis promoteur yi fi duggoon sax def ay combat royal daw nañu ndax mettitu làmb sponsor amatut parrain yi aussi pour ñu jël làmb ji à pour cent day poser problème mais teewut yéen ñi nga xam ne yéenay doog a ñëw ba léegi yéen a ngi béy seen waar lan mooy seen i secret. waaw affaire bi liggéey la man xam tey sama objectif mooy comme drapeau bi tey benn drapeau bu ñu commencé la mais li objectif mooy tey ma dem teg bu teg Modou Lo Balla Gaye keneen ak keneen ko ko incha loolu mooy sama mu nekk ñëw naa fi tey quoi mais parce que tey li nu boole moo bëri te ki nu boole li ma la wax rek sama waay la quoi te gis ngeen tey bi ñëwee ni ñu taxawoo xam nga moo tax tamit euh, ñoo ngi pare daal pour ñëwaat Kaolack incha allah. mais est que mën nga ñëw dee li ngay xaar ci Cheikh Talla. non Cheikh Talla c'est mon xam nga sama waay daal man maa ngi baax lépp maa ngi Kaolack gépp daal xam ñu gën xam ne Cheikh moom comme moo jàppale seen Kaolack yi na gars yi gën taxaw ko quoi moom li mu bëgg tamit xam moo xam yàlla suñu borom defal ko ko parce que ñi li koy xaar Ndakaaru bëri na xam nga yaa ma gën a am daal jox gars yi ñu eggali affaire yi mais ci côté promo bi it fan ngeen ci tool yi ak moom. waaw ñooy wax agent bi affaire incha allah bëgg na mu daw 2STV en direct quoi waaw ñoo ngi ciy liggéey daal. kàddu gu mujj gi. waa sant ñëpp sant Cheikh Talla ak i mbokkam ak i xaritam ak képp ku koy jàppale ak képp ku muy àndal quoi kontaan ci ñëpp sant ñi ma fi àndal waa LP TV ak Wassare nga xam fi ba États-Unis ñoo fi Wassare nga xam nañ jël affaire bi dugal ko quoi di sant ñëpp ñi ma jàppale quoi di sant Cheikh Talla bu baax quoi comme bés bi tey ni mu ñu accueillir xam yombul mu ba léppam xam tamit dinu xaar quoi waaw maa ngi koy bëggee di ko ziar di bëggee ñëpp daal kulu daal. tey le 21 petit. waaw le 21 incha allah yàlla yàlla suñu borom def jàmm quoi. bon da ngaa dëgër fit nag. non du dëgër fit. <laughs> la. <laughs> affaire yi bàyyi rek incha allah yàlla oh, baax na. lamb jooju dafa neex. combat préliminaire ba ca grand combat ba lépp neex. incha allah affaire yi daal xam nga liggéey la rek quoi te ay ndaw la ñoo nekk si yaa ngi toogaat leneen. waaw yàlla baax na lépp lu ñor rek di ngeen xam quoi. <laughs> nañ di nekk di liggéey ndànk rek jërëjëf waaw mbokk yi instant ñuy toggal ki nga xamante mooy pharmacien Nder daanaka mu doon mu sës si rëkk ki nga xamante mooy parrain bës bi tey dañ koy laaj lu lu mu gisee parrain bi ak digganteem ak moom mu wax ñi kam mooy Cheikh Talla Diouf ñu waxtaan si mu saan si ay kàddu parce que lépp si bés bi la xaj ñu lay nuy waaw maa ngi leen di fay waa wasaare TV waa wasaare làmb ak waa LP TV dama naan rek xëy mbay boo ma laajee dinaa kontaan ci loolu waaw ndaxte. wolof nee na lu def waxulu ay di njàmbat te Cheikh taala Diouf xam nga man nu ma ko tuddee Talla dimbalee man taala dimbalee laa ko tuddee xam nga lu tax boo ko séenee muy dem bu laaj fa mu jëm de lu jëmanee kaw Kaolack kanam rek moo ko tax a jóg. soo ko séenee muy dem bu laaj fa mu jëm de dimbali néew di doole yi rek moo ko tax a jóg boo ko séenee muy dem bu laaj fa mu jëm de dimbali ndongo daara yi rek moo ko tax a jóg. boo ko séenee muy dem bu laaj fa mu jëm dimbali ay mbokkam dimbali ay waajuram dimbali ay magam dimbali ay xaritam dimbali waa Kaolack rek moo ko tax a jóg moo tax ma tuddee ko taala dimbalee ndey ji Cheikh fa tabaarakallaa tàccu leen loolu waaye yéen gaa yéen tamit nag ah xam nga combat bi ci luy baax la du am ruq bu sedd xam ngeen lu tax promoteur bi petit la tudd c'est un jeune kin ko tuddee c'est un jeune waaye du sën ndax jeune dafa am sën am moom nag du sën sën mooy ki dëkkee bal bi bool bi ak baraada beeg baal bi jeune nag mooy quelqu'un qui participe au développement de sa localité moo tax ma ni ko waa taalal lan ngay xaar pour def la politique munuma ah dafa jotagul rek waaye lu jot yomb ma ne ko war nga def politique nag xam nga lu tax parce que la politique requiert des personnalités d'un certain statut héritées d'une bonne lignée moom nag il a un certain statut parce que il participe au développement de sa localité fii lépp luñ fii tudd fii ci Kaolack di ko fi def turam dafay feeñ ndaxte il participe au développement de sa localité en plus Cheikh Talla Diouf mii il est hérité d'une bonne lignée xam nga lu tax kii mooy Leyti Ndella Aram Sarr kii mooy Maba Gànna Aram Sarr kii mooy Mambay Gànna Aram Sarr Juuf a ñoxo baay kii Jata Juuf mooy baayam Mamadou Juuf mooy baayam euh, Mbaar Juuf mooy baayam gars yi tàccu leen loolu waaye kii doomi Saalum la gis nga kii bis baa dakaar incha allah Dakar dina mel ni ci cin luy bax du am ruq bu set dina mel ni euh, fitt bu mbër sànni ndax bu bu jógee ànd ak waa Medina Baye ànd ak waa Pencum Serigne Bassirou ànd ak waa Ndorong ànd waa Ngaan ànd ak waa dakaar ànd ak waa Thiès sama dama ne koroog bis ba la 21 décembre Iba Mar Diop dafay wàcc ndax borom bis benn mel kii mooy Cheikh Talla Diouf. ñun dinañ ñëw 48 heures avant la avant la la lutte. ñaari fan ñaari fan ndaxte sama waa ji euh, dama naan nitu réew mi la sama waa ji nitu waa Saloum la sama waa ji nitu. Sénégal la moo tax fas yéene no jóge fii Kaolack jeudi làmb ji samedi la ñu ne jeudi lañ fiy jóge dem fanaani waa ak dem fanaani Dakar ànd ak waa Dakar jëm stade te est-ce que xam nga dañuy indaale teraanga Saalum ndax ku wax Saalum kat wax ngoyaan ku wax Saalum wax junjung ku wax Saalum wax teraanga dinañ ñëw ànd ak waa Saalum ànd ak ndawi Saalum ànd ak jakartaay ànd ak dawalkatu taxi yi ànd ak bépp autorité religieuse ak autorité politique bu nekk fii ci Kaolack jëm fan i Iba Mar Diop fekk ji kan petit le petit du ma ni ko la petit de ma naan ko la petit grand promoteur ndax kat lii mu def. ku petit du ko mën waaye nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax xam nga lu ñuy sant yàlla lii lépp dafa am ku ko waral xam ngeen kan suñu yaay gi ci kër gi. dañ koy sant bu baax a baax a baax moom it di ko nuyu xam nga ak kan sunu soxna madame Diouf mi nga xam ni moo sës rëkk ci taala te du ko rëkk ma dama naan madame Diouf ñaari jukko yi dalu ko xam nga ñaari jikko yi mooy yan foor ak tàng ndax foor ak tàng café la jik waaye jigul jigéen mais nag heureusement dalul madame Diouf ndax mooy le sësan quoi de monsieur Talla Diouf tàccu leen loolu waay. tey mun naa ne dama kontaan parce que Cheikh Talla moom suñu Cheikh Talla la te ñun ay artistes leen Kaolack mais à chaque fois même clip bi ñuy génne sax moo ñuy jox xaalis lépp lu ñuy génne moo ñu koy defal kon yemul ci rek ci làmb mun naa ne Cheikh Talla nit yi ñëpp la surtout artistes yi nekk Kaolack da leen ciy jàppale rawatina man quoi tamit aussi ñu ngi wax na làmb ji ñoo ngi koy pare te pare bu boo xam ne nii xamuñ fu toll parce que moom ñun ñoo ko gën a bëgg sa combat bi quoi. Mhm. tamit aussi ñu ngi ñaan yàlla. Mhm. jour boobu petit kontaan. ak yéen ñi ñëpp mhm. ngeen kontaan ci parce que ñun lépp loo xam ne nii dugal nañ ci Cheikh Talla rek dañ ciy dem ba ngeer mhm. dañ ciy dem ba ngeer quoi mhm. tamit di ñaan yàlla nañu yàlla yóbbu ci bés bi incha allah rabbi ñun ñëpp ñu fekkante fa tamit aussi di ndokkel tamit kii nu mu turati borom làmb ji petit bu baax a baax parce que tey lu nga def tamit aussi dafa nice lu toll ni drapeau drapeau bi ñaari combat nga tuddee ko suñu xarit suñu doomu nday Cheikh Talla Diouf loolu duñ ci def lu dul kontaan. aussi quoi loolu rek laa moom lu ma ci wax. ko waaw tey na nekk artiste na nekk li nga xamante mooy acteur culturel fii si Kaolack. Hmm. tey message bi lan la en tant que sa mbokk artiste yu fi nekk ñu tuddee ki nga xamante mooy drapeau bi Cheikh Talla Diouf. Hmm. te yàgg na leen jàppale. Hmm. yéen acteur culturel yi nekk bii Kaolack. tey message bi waroon lancé lan la. message bu ma war a lancé mooy artistes yëpp ak képp koo xam ne nii Cheikh Talla Diouf dafa na la trang rek ñun ñëpp ñu ñëw si bësam bi. xam nga ndokkal ko si. parce que tamit aussi taala mun naax ne tey artistes yi kawlax yi. ñëpp lay jàppale ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp lay jàppale. rawatina man clip bu ma njëkk a def moo ma ko génneel. heure bu may génne naa quatre clip. lépp moo koy def. billaa walaay taalaa xam nga di ma lu ma gën a neex si moom dafa bëgg sama métier parce que da kay jaral day dem ci ay ñoo xam ne ni am nañ connaissance pour ñoom ñu invité ma ay TFM wala yu demee noonu ko tey mun naa ne su ma feeñee tele yooyu moom moo tax kon mu ngi jàppale ci yu bëree bëri bëri te man moom ku ma defal teraanga rek dama koy wax quoi. wax dëgg yàlla moom ma miinal xaalis. mënal ma lépp quoi. wax dëgg yàlla. waaw di wax ne kontaan nañ ci ñëw bi ngeen ñëw ci Kaolack parce dafa dafa jar a ñëw rawatina tamit ñuy remercier Petit Production mi nga xam ne tey dafa am drapeau mënoon na koo tuddee ku nekk parce que ñun ñun ñëpp a ngi fi waaw ñun ñu riche ñëpp a ngi fi mu ñëw ba Kaolack jóge ba dakaar ba Kaolack pour tuddee ko ki nga xam ne mooy kan mooy Cheikh Talla Diouf waaw Cheikh Talla Diouf dafa nekk nit koo xam ne maanaam amut amut ak kenn xaar ma yàlla waaw man mi ngeen di gis nii rakkam laa xaaritam laa yaa ngi dégg. léppam laa tey mën naa tey moo ma jëlee ci lëndam indi ma ci leer te tamit di ko defal ñu bëree bëree bëree bëree bëri vraiment amuñ fayam te tamit di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mooy borom yi may borom yi lépp tey tey ñaan Cheikh Talla Diouf bu mu yem Kaolack kane bu mu yem Sénégal kese da na na na wër partout dans le monde parce que amuñ fayam mi ngi jàppale waa Kaolack di jàppale artistes yi di jàppale jeunes yi nga xam ne amuñ liggéey te képp ku ñëw wax ko soxlaam. dina ko def te yàlla tax te du ci def ngistal du ci def vraiment daal petit daal kontaan dañ ci moom parce que bis bi moom le 21 décembre moom du yomb danañ ñëw stade Iba Mar Diop wàcc ko ba muy ba mu zéro waaw xaw ma nag waaw waa Dakar moom nañ pare rek xam ne waa Kaolack moom ñu ngi ñëw ak doole waaw te kuñ fa fekk rek dañ lay bombarder incha allahu rabbi parce que borom bés bi moo ko jar muy Cheikh Talla Diouf waaw tey mënoon naa nekk nekk nekk ak ñun du ñu dimbale du ñu def dara mais vraiment ba vraiment mu ngi ñuy dimbale xam nga teg ñu ci ay conditions yu baax ku nekk yaa ngi dégg mu teg la ci conditions yu baax xam nga tey mënoon mënoon na ko cee bañ a fekk mais vraiment daal ñi ngi ñi ngi ñi ngi koy remercier tamit di remercier Petit Production di ñaan yàlla tamit yàlla na dem bay tëgg ay ay ay grand combat ay Balla Gaye ay Modou Lo waaw vraiment merci quoi. merci maa la jaajëfal bu baax a baax jërëjëf jërëjëf.